crise des valeurs ak jafe-jafe yi nga xamante ni gis nañ ni euh, société sénégalaise am na ko moo waxal tey ji ñu dalal docteur Abdourahmane Kane nekk sociologue euh, kon xam-xamam màcc ci wàllum sociologie ñu koy nuyu Abdourahmane Kane di ko dalal jàmm. maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu tey ji docteur Abdourahmane Kane euh, question bu lay njëkk laaj en tant que sociologue dañ lay laaj exactement ci crise des valeurs bi nga xamante ni Sénégal fa la toll lan moo ko waral exactement. waaw crise des valeurs bi moom euh, am cause cause yu bon d' euh, am na àdduna euh, parce que d' avant crise des valeurs damay delluwaat d' abord ci peut-être loo loo ci dégg mm-hmm. parce que crise de valeur lu muy lu muy lu mu lu mu lu mu ëmb souvent dafa dafa dafa large. Mm-hmm. dafa large parce que déjà le concept même de crise de valeur ça pose ça pose problème parce que souvent nit ñi bu dara amee rek ñu ne bon am na crise de valeur alors que amaana sax ci fi ñu toogee woon euh, mu nekkul woon lu lu gën. Mm-hmm. moo tax question bi mu nga ma lan dégg ci crise de valeur. lan lañ mën a dégg ci crise des valeurs peut-être danañ. gis ay mbir yoo xam ne tàmmuñ woon di ko gis. gis ay comportement yoo xam ne tàmmuñ woon di ko gis euh, parfois xale dina def sax benn jëf boo xamante ne dinañ wax ni ah lii de euh, yaa euh, un siècle wala deux siècles xalaatuñ ko woon wala yaa cinquante ans lu ni mel amul woon comme ni nga gisee rek léegi li nga xamante ne mooy dépravation des mœurs xale yi ni ñu woowee bët ainsi de suite. Ah, côté bu nekk voilà ci. crise des valeurs ah. ci côté bu nekk non duggaguñ sax si côté boobu. mais ci crise des valeurs voilà. voilà ça veut dire que xam nga réew bu nekk ak population bu nekk ak euh, nation boo gis rek ak population ak ethnie ku ci nekk rek am na ni ngay tëralee loo xam ne yow da nga jàpp ni que lii moo gën lii moo gën ça veut dire que Sénégalais en tant que nation musulmane en tant que nation religieuse en tant que nation tout court dafa am ay point ak gis-gis li doxalin yoo xam ne da ko jëloon jàppee ni que lii ñun suñu société nii moo gën. Euh, léegi nag adduna di dox. bi nga dem ba valeur yooyu ñuy wax moom dañ ko war a di ko pérenniser di ko développer di ko di ko di ko protéger. Mm-hmm. di ko reproduire. bon loolu la ñuy wax souvent la reproduction sociale. Mm-hmm. mooy bi ñu demee ba tënk benn affaire boo buggee nag affaire boobu di wéy mooy yow mii jur boo juree sa doom da nga koy jàngal sa doom tamit jur doom jàngal ko ba finalement ñu mooñaale ko ci bi ñu continuer di egg di di di di law di di la donc loolu lay continuer mm-hmm. tant que nag benn phénomène xewul mooy phénomène ban mm-hmm. mooy ki ko waroon jàngale jàngale tu ko ki nga ko waroon jàngale nangootu ko wala ki ko doon jàngale boobu dem ba ne lii gisatuma ci sama bopp mu arrêté ko donc bu boobaa valeur bi day dee mbaa valeur bi day arrêté wala boobu mu nekk sax dafa genre élément surtout mooy jël décision comme lu mel ni état bon lii kenn dootu ko fi defat waaw donc suñu suñ suñu valeur yoo xam ne ñun suñu jamono maan yi ñun ñoo ko ñoom ñoo ko tënkoon di ko développé dañoo dem ba ci biir nag comme mu ne benn instant mu am yeneen gi ci rax lu ci wax mooy colonisation lu ci wax mooy aujourd'hui la colonisation culturelle télévision yi euh, rajo yi xam nga ak acculturation bi donc valeur yu bëri forcément aussi avec le temps dina am ñu bëri ñoo xam dañ ko mujjee bàyyi ñu am tamit euh, ci population bi ñoo xam ne ni que ñoo waroon ñoo doon sentinelle yi dem ba mujj bi ñu wàccee seen loxo mooy mooy les parents mooy les familles mooy les religieux ñu dem ba léegi loolu newoon suñu valeur yëpp moom ñu dem ba jàngaleetuñ ko Mhm. voilà jàng jàngale bi ñu ko ñu arrêté ko ñu ngi ko doon jàngal ñu tamit comme jàngale tuñ leen ko wala boobu jàngale tuñ leen ko mu waree. ñooñu dem tamit avec le temps ñu dem ba commencé di ko abandonné tuuti donc yow mii di yow mii di doom. bu fekkente ni yow valeur yow parce que valeur yi ëgg ci yow trente pour cent la ba quarante pour cent rek nekk na mu baax la ñu la jox. boo juree doom nga joxaat ko encore di pour cent te doom jur doom joxaat ko cinq pour cent mais dañu egg benn instant boo xam ne ni que pratiquement dara destu fa ah. voilà donc les causes sont là donc euh, avec l'évolution de la société ak euh, le manque de de reproduction sociale mooy mooy ñi waroon joxe valeur yooyu di ko def en sorte que euh, ñi di ñëw après ñëw mun a tënk valeur yooyu Euh, nangul ko seen bopp loolu moo moo moo dem ba amatul moo tax léegi finalement boo jëlee gi jeunesse sénégalaise. Mhm. en règle générale donc pratiquement li doon valeur sénégalaise yëpp yoo xam ne ñoom pratiquement infiltré wuñu leen ko. donc amuñu ko. Mhm. voilà donc. Euh, ci ci crise des valeurs bi. docteur Kane am na ñuy wax euh, di ko jiiñ télévision bi parce que jàpp nañ ni télévision bi ñooy wane yoo xamante ni dëppoowul ak suñuy valeur yow côté boobu lan nga siy wax exactement. que souvent dañuy imposé benn culture occidentale loo xamante ni valeur u ñeneen la ñu imposer ñu ko via la télévision ñu jàpp ni lu ni mel bokk na ci li indi euh, crise des valeurs loo ci loo ciy tontu. waaw xam nga wax naa boole naa ko léegi léegi mooy sudee xam nga wax naa colonisation wax euh, mais dafa ay ay outils la ñuy utiliser outils yooyu d'abord ils par les écoles ensuite par la radio, par la télévision, par l'Internet maintenant. Effectivement, euh, euh les véhicules aujourd'hui d'acculturation ou alors de, de, pour faire connaître euh, pour nous, nous, nous, bonne pratiquement radio, télévision, Internet. mais loolu bi ñu ko ci di ko mais ñu ko bàyyi ñu dugg la ñaari ñaari ñaari cas yi ko ci bàyyi ñu dugg d'abord état la xam nga état boo foogee ni que développé réew da ngay ñëw teg ay pal yi teg ay leneen wax nga sa bopp Mm. parce que euh, être humain nit nit nit mbindeef moo moo moom mooy base moom mooy atome bu gën a am importance n'est-ce pas moom mooy law joxe leneen lépp donc bu fekkee ne nit ki nga yilif yow déjà formaté woo ko joxoo ko jikko bu baax joxoo ko mentalité bu baax euh, amul valeur amul dara leneen loo teg à deux jours da koy tas moo tax da ngay gis yeneen yi bi nga xam ne dañuy tabax ba mu rafet mais chaque chaque décennie mu am guerre lépp tëjaat gaa yëpp yàqaat yëpp parce que tout simplement ñi ñu waroon euh, soubassement bi euh, fondement bi la ñu la ñu la ñu deful donc y a un relâchement d'abord de de de l'État parce que état moom li ko intéressé mooy li tuub def nit ñi mooy ay ay ay ay ay bâtiment ay croissance kii kii nañ kii et cetera te comme ñoom si seen bopp dèjà ñu ngi leen di accuser crise de valeur sax ñoom seen bopp dèjà jàpp nañ ni que amuñu valeur. biral ay référence côté valeur. donc ñoom tamit bu ñu ñëwee nguur gi ñoom ay affaire valeur pour ñoom ils mal placés tey pour di ko jéem a mettre en avant. parce que nit tamit lu mu gën a lu mu gën a bañ ci àdduna. ko yow sa dikku bi nii te yooyu ñu baax la nga baax moom mun loolu sax lan nga war a lijjante moom si dikkam parce que loolu tam loolu tam ñi ñuy dirigé ko moo tax ñoom dañuy laal tëb ba mu def si dikku yi waaw lépp loo xam ne c'est intrapersonnel rek dañuy ne loolu loolu du suñu yoon te ñu dem liggéeyam ci leneen donc valeur yeeg leneen ni kenn topp ci loo xam ne sax suñu légiféré dañ ko bind tere ko policiers yeeg gendarme yeeg ñoom ñu ba pour ñoom bu ñu ko liggéeyante parce que état bi tamit joxul leen instruction ne ko lii ko bëgg mu deñ waaw donc y' a d'abord y' a y' a y' a y' a ce problème donc au niveau de sécurité déjà loolu du seen du seen du seen ay euh, du seen euh, defuñu ko priorité. Mm-hmm. beneen cas bi mooy famille bi mooy les pères de famille en eux-mêmes aussi c' est pareil mm-hmm. parce que ku ci nekk damay jur sa doom bu boo bëtam xool moo tax d'ailleurs wolof daan ne sa boo bañee mu jooy bu màggee jooy lool parce que day nekk ni tuuti tàng nga topp ko rek ci ay ay ay ay ay caprice am mais doo doo ko dóor doo ko yar doo ko xas doo ko lu mu lu mu def rek muy noonu parce que tout simplement muy jooy lay nekk mais bu màggee lay doon jooy lay doon dina ñu ngi liggéey ci coppite nekk sa guddi gu nekk di donc ñaari camp yooyu yëpp ñaari beneen camp bi mooy c'est le camp religieux ñoom tamit pratiquement même dikku la ñu yor ko politiciens yi parce que bëgg nañu am ay mbooloo bëgg nañu am ay taalibe am ay nit donc xam nañ ni que Sénégal bëggul dëgg Sénégal li ñu bëgg mooy dafa am lu leen neex boo ñëwee maa la garanti sa jàmm waaw ñoom bëgguñu ngay ñëw di leen affaire sangara nii ay lii dafa lii ay ñoom duñu wax sax waxu waxu duñu wax sax waxu safara pourquoi parce que ñu xam ni que plus ñu ñuy tout seen taalibe yooyu di dem seen taalibe yooyu di dem dootuñu amati <clears throat> lu ñu leen di may par cérémonie ak leneen leneen donc dootuñu amati xaalis donc ñoom li neex si seen taalibe yooyu li ñu seen taalibe moo tax bu ñu dugg ci question de valeur bu ñu dugg ci question de lii boo ko defee yàlla def nii lii boo ko def nii et cetera garantie wu parce que meloon li di wax rek mooy def leen leen neex mel leen leen neex boo amul problème tant man rek man tamit yow ta liggéey itam nga xam nga bu fekkee na ngay toog indi ba maa ngi mooy yàlla nga tourné gis am ñu lay la gaa am doo mos a changé voilà donc ah. ñetti pôle yooyu ñoo nànk éducation mm-hmm. waaw ñetti pôle yooyu yëpp nag bu fekkee nag ñoom mooy amul loolu mooy ñeneen ñëpp ñu si parce que koo fi gis loolu soit nag état bi nga tënk si sa parent ou say euh, say njiit religion voilà donc nag ñoom ñoom ñetti points yooyu amu ci benn boo xam ne tey jii am na benn genre poñ boo xam ne euh, am am na ci muy religion dans le sens général ah même les catholiques les ak les autres et cetera donc euh, éducation bi moom c'est beaucoup plus une éducation de rente <coughs> mooy da ngay organiser cérémonie gars yi ñëw bu ñu ñëwee nga laaj leen cotisation ñu joxe. waaw même ci biir jumaa yi sax léegi noonu noonu noonu moo fa xew donc ñaari ñaari projet yëpp pratiquement tey jii joué ñu seen rôle comme ni ñu ko war a joué alors que valeur nag dafa dafa dëgër bopp boo ko bëggee toogloo nga ancré ko dafa laaj un travail permanent boo xam ne ni que c'est se c'est quotidien da mel ni tey jii ngay jàpp ballon football rek gonflé ko mu fekk la bu ko dugal ci bi da nga koy dugal ci ndox bi téye ko boo tegee sa mu génnaat. mais mais ah, donc nag voilà docteur tey jii boo doon bala ñuy ñëw mais boo doon natt euh, place su euh, li nga xamante ni mooy internet ci wala responsabilité internet ci crise des valeurs bi am fii au Sénégal. waaw place bi moom tey boo ko doon boo ko doon méngale ci internet mun naa leen ni tey crise des valeurs bi moom pratiquement moo ci. occupé na presque entre trente ak quarante pour cent voilà trente ak quarante pour cent te nga amee crise de internet ak rajo voilà ci nag internet bi la moo nekk ci mais boo nee internet sax nee nga télé parce que léegi télé yëpp ci internet bi la nekk voilà donc pratiquement internet bi mooy waaw mooy ndey mbilin internet bi bu fekkente ni tamit dañoo boo demee ci yenn réew yi ñoom dañoo xam internet bi ñu mel dañ ko réguler dañoo xam télé luy dooleem dañ ko réguler tey jii boo doxoon gis nga yu bëri yoo xam ne dafa tubaab bi ñu koy jaay mais ñoom dañoo réguler seen seen seen seen seen seen dëkk ba pare soog di ko libéraliser ñun dañ ko libéraliser ba pare di xool léegi nan lañ koy réguler tey jii États-Unis boo fa demee boo toogee sa hôtel mbaa sa kër gi ñëpp lu bon loo bëgg a seetaan il faut nga fay cest à tey boo mënoon faram ay clip yoo xam ne ni que nit ñi dañ koy nekk pour sol yenn sol yi di saa yi di génne fii si la day sacrificatif yoo xam ne dañ ko culturé. Mhm. da ngay da non seulement dañ koy fay mais lu ci bëri dañ ko censuré. mais li jëm ci télévision yoo xam ne nag nag nguur gi ak ñeneen ñoo ko fi boo ko demee ñu ngi ci ay documentaire ñu ngi ci ay xelal ñun ñëpp ñu ngi ci ay ay ay ak ak leneen. Sénégal lan ngay gis yoo xam ne tout est gratuit. waaw ku la neex dugal même internet bi tey boobu gars yi ñu ne liberté la donc tey amul censure amul amul amul amul amul dara amul régulation nit ki ñu la neex day te ci internet bi amul kenn ku lay ne lii baa defal lii mu defal la leen te loolu état bi tey nañ parce que bu ñu toogee tey ba deux mille vingt ñuy wax la loi sur sur régulation sur la presse ou la la loi sur la pornographie ou la loi sur autre chose mais ça veut dire que le pays est grave parce que loolu moo waroon jiitu malheureusement nag dañ ko libéraliser bàyyi ko noonu léegi nag après ñu bëgg a dem naa dem ba ci biir bu ko changer c'est comme c'est malheureusement nous on fonctionne noonu la ñuy fonctionner ci même dëkkuwaay yi gars dañuy dem ba teg kër yi kii ko nu mu tuddati karale ko dafay air plus dafay ay ay kër kër kër chaque étage après nag léegi ñuy xalaat ndox bi di jaar fan la égout yi di jaar. Mm-hmm. mais c'est trop tard égout yooyu ak ndox yi ak courant bi moom la ñu war a njëkk a installé soog di teg kër yi. waaw da gis sax ay kër yoo xam ne ñaar diggante ñaari kër oto xaj a fa. waaw donc malheureusement ñun suñu organisa organisation moo war a jiitu jëf. mais ñun dañuy jël ba pare delluwaat nag lañ lan lañ koy organiser. voilà c'est ça le drame tout ce que nous faisons tey loo jël ci Sénégal rek loo jël noonu la nit ñi amul organisation amul dara dañuy jëf ba pare dem nag bu affaire bi demee ba carabine ñu ne waa léegi nan la ñuy def nag léegi ba mun ko réguler waat te pour nga réguler waat il faut nga toj il faut nga yaasaat yëpp waaw donc nag loolu tamit il faut que nit ci xel mais internet bi pour man c'est un élément élément la fondamental tey euh, ci dégradation des mœurs ak crise des valeurs et malheureusement nag dañ ko voilà fas bu dafa la bu ñu bàyyi noonu nag. voilà beneen alors que dañ ko war a réguler dafa war a organe bu ko réguler pour ci nekk xam loo ciy dugal. Euh, et doo demee ci dëkk yu bëri yoo dem yoo tey jii lépp luy de valeur rek dañ koy surveiller dañ koy nangu et cetera parce que école na voilà euh, lii di télévision lii di internet pratiquement mun nañu ne benn école la boo xam ne mooy jàngal Sénégal yëpp. mooy le seul outil boo xam ne tey cas bu ñu yeewoo rek pratiquement am na sept à huit millions de sénégalais yoo xam ne ubbi nañu seen ay xëy ñu ngi jàng léegi nag lan nga leen di jàngal ci biir instant boobu bu nekkee lu bon la ay nit ñu bon rek la ñu doon ubbee ay nit ñu sans valeur mais tamit même bu fekkente ni temps dafa ci aussi parents yi ñu ngi def seen ay liggéey dina am sax au moins su dix personnes quatre à cinq yoo xam ne da ngeen sori parce que nit ki am na yar yar bu jiitoo ci yow am na yoo xam ne duñ ko jom. waaw mais bu fekkee nag amul yara amul dara lu ñu wax ni loo xam ne moytu ko lii dina ñëwee bu ñëwee bu ñu def donc boo ko gisee tu es sa à toi-même donc boobaa da ngay décider et le plus souvent à force de voir ça bi leen di woo leen euh, bu yàggee waaw di nga ko jàpp da ngay jàpp comme banalité la parce que nit boo yàgg gis rek te wax ñu la ci dara da ngay nekk c'est banal te li banal rek. Euh, voilà beneen ponk bu liyee euh, docteur Kane Abdourahmane ak crise des valeurs di dañu gis ne tout d'un coup rek euh, société sénégalaise dafa nekkoon société boo xam ne dal la ñu xam jàmm ak salaam mais dafa jékki-jékki rek nekk. une société boo xamante ni elle est elle est violente comme euh, léegi ni nga gisee faat yi dafa bari euh, faat dañ ko doon dégg rek ci yeneen réew États-Unis d'Amérique wala di ko gis ci film yi léegi nag fii au Sénégal euh, pratiquement chaque jour wala chaque deux jour wala chaque chaque semaine dinañ ne diw faat na diw ci ay affaires yu banal ñu gis ni tout d'un coup elle est devenue une société de violence lu ni mel lan moo koy expliquer exactement PDS sax du tout d'un la boo xam ne dafa mel ni tey jii rek parfois am na yenn yenn fruits yi balaa ngay xam ne nëb na rek nga ubbi ko léegi la ñu commencé di kon di nangu ubbi problème jiwu gi parce que télévision yaa ngi fi rajo yaa ngi fi ak leneen ak leneen bu xëyee dañ koy gën a fësal mais malheureusement li mu la wax rek crise des valeurs man dafa dafa dafa yàgg dafa yàgg ci sous terrain ba nga xam ne kenn liggéey tewu ko kenn toppatoowu ko muy nekk ci nag di law di law di law di law ba instant bi nag mu commencé jéggi de mais li ngay wax yëpp lu yàgg la lu yàgg la chez les politiciens parce que Sénégal ci ngay gis ñu koy tey nit dëgg ci du dem fenn parce que yàq du mujj fenn baa nga agressé nit entre politiciens yi entre bieg diw et cetera pratiquement da ngay gis ni que après du mujj fenn boo demee ci yenn quartier yi dañuy tamit commencé ñu entre ñoom début bi ñu ne waaw ay xale lañu waaw ay règlement de compte la dañuy kii rek et cetera yëpp ñu ñu koy xeeb waaw ngay gis ko ñoo xam ne tam xale yi fa la ñuy toogee di foowee di foowee yamba ñëpp gis ko def comme si sama yoon newu ci voilà donc ñu bàyyi daal finalement yamba bi dem ba dof loo leen am liggéeyatuñu amatuñu dara après il passe à une étape supérieure parce que adduna tam noonu la affaire benn ay escalier la benn escalier ñaar ñett et cetera. maanaam dañu yàgg seetaan maanaam dañu yàgg seetaan di sàggane. dañ koy yàgg seetaan waaw dañ ko yàgg seetaan yàgg yàgg ko seetaan ba pare dem ba banaliser ko famille banaliser ko koñ yi banaliser ko parce que boo nekkee ci koñ yi gis kenn koo xam ne. mu ngi def naka sa noonu te yaa gën a xam ne kii jaaykatu drogue la jaaykatu yàmba la ngay toog foofu di ko di ko ciipatu di ko leneen nga war a woo police def descente bi jamono yi ñu doon commencé bu ñu defoon descente téye ko benn mu naan mu changé baa mu bàyyi mais fii moom comme lépp la rek da ngay gis kenn koo xam même même même ak lay commencé nit ki mooy ñëw teg ñaari dàll waa koñ bi di ko romb ne waa kii li muy def ñu ñuy xool xool ba finalement mu nekkaat marché mais bu demee ba nekk marché ak fu jëlee lañ sa problème la donc tamit bi ak kii yooyu yëpp tamit noonu la noonu lay rampe day commencé ndànk ndànk di et cetera nit ñi di ko di ko di ko seetaan parce que sénégalais moo amul culture lu ñu bokk di sa bopp sa bopp rek mooy du genre yow pour yow jàpp nga sa àdduna sa biir cent cinquante mètres carrés li nekk ci biir sa yoon newu ci mais loolu nag li mu ne lu mu na lu mu nekkee sa yoon newu ci noonu lay demee nag ba ñu fekk la ba ci biir kër sa kaw te bés boo génnee ci les quartiers ne sont pas organisés les parents ne ne disent pas les quartiers ne sont pas organisés y a donc une sorte de connivence donc moo tax violence bi day gën def lañ politiciens yi tamit ñëw gën gën gën ci yokk mbir parce que politiciens yi ñoo war a njëkk joxe exemple mais boo nekkee dans un pays boo xam da ngay remarqué ni que tout le temps ay impunité la politiciens yi ñuy def ay yëpp dara du leen ci teg ñuy et cetera et cetera ñu di ko ci après euh, ñu comment marché affaire bi yow tamit ngay nekk jeune nekk sa kon tamit doo doo doo tax amati dara loo koy traité policiers yi tamit ak gendarmerie dañ leen war a doole jox leen matériel boole si tam yeewi leen parce que police ak gendarmerie état lu mu ko nee lii di priorité nu mu ko ci gën a ko soññee ci circulation moom la ñuy liggéeyante bu ñu ko soñee ci drogue bi moom la liggéeyante bu ñu ko waxul dara tamit ñoom tam ñuy gérer dossier ñu amee donc il faut que la sécurité tey mu nekk benn priorité boo demee tey ay ay ay dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire boo déggee li ñuy wax la phénomène des microbes mais noonu la demee phénomène des microbes dañuy ñëw xëy rek nekk en sang rek dugg rey ñëpp jam ñëpp jël seen ay bagage ñu dem ba finalement huit heures du matin sax ou bien seize heures du matin ou euh, seize heures pardon ou douze heures tu n'es pas en sécurité en plein jour donc ñun tam bu ñu seetaanee ci ci ci ci foofu la ñuy ci foofu la que en matière de violence moom au-delà même de la sensibilisation et de l'éducation ban euh, bâton la rek c'est-à-dire que nit ki même bu fekkee ne sax éduqué même bu nekkee amul yar mais am na lu constitution bi mooy c'est-à-dire que répression bi am na lu muy taree rek day parce que day ne lii bi ma ko defee li ma la dal sama kaw du ko fekkee voilà donc en matière de violence quand même kooku euh, état bi moo ci ëpp responsabilité parce que même bu nee parents yi yaruñu même bu parce que day dëkk yu bëri yoo xam ne les gens sont ils sont violents dans la tête psychologiquement mais xam na li fi ñu yem parce que xam nañu ni que boo am na beneen ligne boo xam ne boo ko dépensé rek yoon dam sa bopp mais Sénégal nag fii y a maintenant trop de violence mais voilà donc finalement euh, ça prend de l'ampleur et aujourd'hui boo demee ci yenn euh, quartier yi du ma leen cité mais c'est c'est catastrophique kenn am kenn ñemetul génn yenn yenn yenn yenn heure yi kenn ñemetul seet nit ñi et cetera ñu ñu ñu wàcc dañ ko rek ñu wutati seen biir seen biir kër ci tali yi léegi la ñuy agressé ci les grandes affaires les grandes ay yu mel ni euh, BDR yi ak ak autoroute à péage et cetera dañuy gis bu embouteillage am rek gars yi ñu gars yi ñëw dal sa kaw donc loolu se une insécurité totale boo xam ne ni que tey euh, responsabilité état la parce que dans un pays moom bu fekkee nit ki peut pas assurer la la la sécurité euh, ci population ça veut dire que dafa day na waar mais est-ce que tamit euh, euh, comme par exemple ñi naan euh, maanaam violence boo ko bëggee faj danga koy fajee ak violence parce que ñenn ñi ci faat yu bari sax agressé nit nangu saagam faat ko comme ça banalement violé nit euh, faat ko xool nit ki neex la neexu la nga nga faat ko am na ñuy wax ni nañu andi li nga xamante ni moom mooy peine de mort pour régler ce problème yow d'accord nga si waaw wala déet. pour man c'est pas c'est pas la question de la tamit euh, boo doon boo doon xool tey violence bi en règle générale merci point bu ndaw leen si occupé donc c'est-à-dire que tey bi am na loo xam ne moo gën a yitteel Sénégal yi en terme de sécurité c'est pas mais par contre ci ma d'accord ak ñi ko wax mooy ni que moom laa doon wax sànq dama ne nit ñi bu ñu xamee ni que ligne bi bu ñu rek dañuy rëq sa ndig te dinañ ko dinañ ko yëg bu baax. dinañu réfléchir à deux fois avant que ñu koy def donc tey le ñu taral mbiri voilà def en sorte aussi que mu am benn genre diligence ci da ngay gis tey nit da ngay ñëw agresseur ba dóor la mun na ba a sa agresseur mais mu dóor la rek jam la gaañoon mais balaa procès yi am pratiquement bés bi nag nga romb ko muy dox ci soxlam da nga dem ba sax yow fàtte nga dossier bi donc il faut mu am benn genre diligence aussi par rapport à à, à, à la violence donc ça veut dire yëpp loo def tu voilà maintenant nag kenn ku rey tamit pour man ñu rey ko ak ñu ñu tere ko gisati ci nit yi pour man man loolu c'est pareil voilà man tey jii nit rey kii ba ba muy dee dootul génnati dootul wala ba bu yeboo sax ñu utal leen daaru euh, centre yoo xam ne ci campagne ba lay nekk gars yi def ay tool def ay leneen ak mënuñu mu nekk genre travaux forcés nga xam ne boo reyee nit ba ba ngay ba ngay dee dootoo génnati prison te bés boo yeewoo huit heures ñu dugal la ci euh, ci nu mu tuddee encore ci champs yi ngay béy baa ngay defar menuiserie baa ngay defar leneen bu sa heure waat jotee nga dem tibbiwaat ñu dem dugal waat la sa cellule man pour man boobu agray bi c'est c'est du pareil au même bu ñu ko reyee bu nit ñi décidé woon rey ko ça peut être une solution mais l'essentiel bi mu nekk nit koo xam ne day rey nit ba pare comme dëkk Touba bi ñu rey nit ñu tëdd kaso pendant sept ans ñu waaw léegi kii yaru na waaw léegi mën nañ ko réhabiliter dañ koy génnewaat mu dox loolu moom par contre man je ne suis pas d'accord voilà peine de mort c'est pas une priorité pour man mais la privation de la liberté n'est-ce pas jusqu'à la peine jusqu'à la mort man ci man ça doit être aussi un en fait. voilà loolu man bu doon kii ci nit ñi. man gëm naa ni nit dinañu dinañu réagir a deux fois avant ñuy ñuy def ñuy def ñuy def ñuy def yenn yi. beneen jafe-jafe voilà parce que souvent c'est parce que au niveau de la violence. Mhm. y a pas une constitution y a pas amul amul contrainte bu mag. moo waral nit ki tamit moom dans sa violence c'est graduel. waaw da ngay commencer di saaga ay nit. gars yi dañu ko dañu nappal non kii nii kii dafa tàng xool rek. nga commencer mbëgg gars yi ñu wax dara. nga commencer kurpeñ du ñu wax dara nga commencer génnee du ñu wax dara. at nag ci ñuy mujj foofu nag lay reyee nit ki donc la violence prise en charge ci base ba dina tere ñu egg ci yenn parce que dangay dem tey dëkku tubaab bi da ngay saag ni tax gars yi gars yi yóbbu la tribunal mais fii Sénégal sax boo newoon da ngay dem boo newoon da ngay dem police tey di forcer leen nit parce que dala saag mais nit ñi dañ lay ñi dañ lay rey parce que loolu moo lay woon tey jii gars yi dañu am culture boo xam ne. culture de laisser aller la. boo demee tey ay ay ay France mais doxal rombal benn policier nga sànni nga ko dañ lay woo verbaliser la donc réew la yoo xam ne ci boo xoolee ñu bi la alors que dëkk yooyu ñuy yore en termes de démocratie on te permet rien du tout parce que on te permet rien du tout on ne peut pas te permettre koo xam ne nee da nga di sànni këyit ci suuf verbalise la nga kooku moom xelam du ko may

ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dafa jéggi dayoo si dans un pays boo xam ne sa nata sa nata le droit ñëpp teg ci bët bi ku nekk di seetaan waaw donc euh, da ngay gis ne situation kenn koo xam ne day jël benn tañ dem ba ci fond bi bu ñu dugaat bloqué pratiquement plus de deux cent voitures ñëpp taxaw di ko toog sama di ko seetaan bu neewoon ci yeneen dëkk yooyu heure boobu kenn waxtu waxam di ngay àgg sa kër jënd sa mbir bu beneen yoon di nga dugaat ci voilà donc yaa yaa quand am na benn genre culture goo xam ne bi ngay judd ba ngay magee yaa toog la sale mooy waral ñuy habitué ñuy habitué yenn yi. voilà parce que tout simplement l' éducation de la population. Euh, ñi ñu dirige ñoom jàppewuñ ko comme priorité waaw comme jàppewuñ ko comme priorité nag boo yarul nit defaraat ko loo jox yàq na waaw tey jii loo def ci biir Sénégal bu fekkente ni seen suñu population yi expliqué yaruñu leen ci yenn moo waral loo defar deux ans après da nga defaraat lu fi président def lu baax bu keneen ci ñëwee pratiquement lu koy defoon en ce temps yàqu yi su ko parce que boo defaroon tey jii benn benn mbir foppaate yow keneen ci ñëw war a defaat leneen takku ci kawam mm-hmm. ci teg ci kawam day recommencer li kii parce que li kii defaroon population boobu ñàkk yar ak ñàkk jëf yàq nañ nañ ko ba pare donc problème d'éducation bi souvent dafay revenir. ak yeneen ak yeneen donc tu passes tout ton temps à refaire et donc moo tax def di bees parce que nit ñi loo defar rek gars yi continuer di def di di di yaaxaat leneen. Hmm. beneen jafe-jafe gis nañ ni euh, société sénégalaise sànq sax wax nga ko ci sa biir euh, wax ne euh, politiciens yi maanaam joxatuñ cër politiciens yi li ci njëkk sax moom mooy le fait que gis nañ ni politiciens yi walla politique yi ñu ñu jiite amuñ kàddu ñàkk kàddu googu nga xamante ni moo am tey ci woy politique yi lan moo koy expliquer. waaw ñàkk kàddu bi moom lu xam nga politiciens yi ñuy fàtte souvent benn mbir mooy ci ñun la jóge xam nga tamit bu fekkente ni ñoom euh, ñoom si seen bopp su suñuy mag yi la su suñuy rakk yi la su suñuy cousin yi dem nañu ba léegi-léegi ne la population bi toll na fenn foo xam ne pratiquement ñëpp ni doon jikko ah parce que loolu mooy reproduction sociale reproduction sociale mooy ni que dafa am benn genre ñu fi nekk ñoom ñu ñuy doxalee ak ñu ñuy leen ñu nekk ci suuf ñu nekk ci suuf bu ñu ñëwaatee rek jikko boobu la ñuy jël donc politiciens yi tey bépp bu ñu yor si c'est général rek te et rek c'est parce que tamit population bi noonu la mel. ñun suñu bopp mooy ñàkk kàddu boobu ngay wax ne boo fi demoon tey ci ci ñëpp ñëpp loolu lañ mel boo demee ci bureau yi. da ngay déposé si dossier bi normalement ñëwul suba jooju ñëwaatee suba bi doo ko doo ko fekk. bu nit ki boo woowee nit ki boo ko waxee dara mu ne non pour suba nañu dañu suba doo boo fa eggee doo doo ko gis xaalis mu ne fin du mois ma jox mais fin du mois bu ñu gisee seen seen seen diggante yaa donc ñàkk kàddu googu c' est c' général. donc c' est général mhm. du ci poli politiciens yi. politiciens yi fan la ñu mën a dimbale. mooy ñoom seen jikko lu mu bon bon ak lu mu ñu munti mel bu ñu xasee nag xam nga nit mun nga fen sax rambaaj euh, def lee neex pour am nguur mais sa mbëbët doon nekk ni que bu ma eggee ci nguur ga parce que loolu moom su ma doon eggal mhm. mais egg naa fa léegi lépp lu bonoon damay delluwaat changé ko bu boobaa da ngay gis nit ñu bon ñoo dimbali woon ñëpp dañuy ne ci woorkat la parce que da ngay gis ne ñoo xam ne jamono yii jamono yii dem ci nguur ga doo leen dégg ci dara loo xam ne li ko wóor na leen ni que lii buñ ko waxee électeur kenn du leen votel xam nga tey booy dem di yëg ci nguur boo nee man bés bu ma jëlee nguur gi sàngara kenn dootu fi naanat da ngay gis mandikat yëpp kenn du la votel mais boo ko noppee nag ba ba yëg te ñi ci ñooy yëgal ci la ñu Mm-hmm. waaw nga delluwaat nag léegi jël say décision donc moo tax ma ne tey jii ci ci li ngay utum nguur gi euh, population yi fan la ñu kii euh, homme politique yi fan la ñu mënoon dimbale mooy bu ñu xasee ba ñëw ci nguur gi ñu delluwaat nga gis ni que am na yu bëri yoo xam ne jamono ñu doon ut nguur gi ñoo gënoon xam ne que lu bon la woon ñu delluwaat fegal ñu ko waaw ñu delluwaat fegal ñu ko parce que c'est important mais ñoom seen jikko yu ñu yor moom. pratiquement ci population bi ci base bi lañ ko jëlee incha allah mais loolu moo tax ñu réussir parce que te jii nit ki loo ko xas-xas xas si dikkam mais bu élection jotee nga gis ne gaañ bi laa déglu mais xaaral ah, du ay jinne ko faral du ay jinne ko faral ay nit ñoo ko botal. Mm-hmm. te pourtant pourtant mu egg si mu egg ah statistiquement parlant parce que nit ñi ko botal dañoo bëri donc nit ñooñu tamit ça veut dire ñoom ils ne sont pas contre dikkam bu fekkente ni cas. ci biir su sec bi ngay wax par exemple moom il est venu de euh, moom mooy numéro après Macky. Mhm. te jikkam bi ñuy changé tey jikko bu yàgg la ci moom. dëgg la donc ça veut dire que tey population ils ne sont pas contre ces choses là. et c'est ce qui est dramatique d'ailleurs. Mhm. loolu moo si ne suba loolu moo si loolu moo lay wan ne tey bii yàqu nañu. parce que am na yoo xam ne tey. nit ñemewu koo def ci réew boo xam ne ni que ay réew def parce xam nga ni que bés boo koy def bés boobu me mhm. pare ak nit ñi boo jëlee tey États-Unis tey euh, Trump élection yi jeexagul. waaw ñu jël micro bi ne moom moo gagné. Mhm. mais dans son propre camp ba ci ki yore les républicains au niveau du Sénat xaw ma congrès. Mhm. mais moo jël télé bi di dal kawam. aujourd'hui tey Trump problème am doo ko dugal sax ay nitu Biden mais ay nitam la nit. parce que dafa am loo xam ne daf ko def du mhm. tey nit ñi tamit du toogaay boobu la war a toogaay. Mhm. la ñu war a la mhm. mooy lan foo mun ci far nit ki bu déggee bu déggee nga wax xam ni que yow population bi moo moo moo moo am importance. donc valeur yooyu pour que pour politicien mun ko appliquer il faut que ñoom ñu gis ni que buñ ko defee. automatiquement am na benn réaction négative il faut que mu am léeg-léeg nag c'est dans la population en règle lañ ko lañ ko lañ ko war a xeex politicien nag loolu sama point de vue la dafa am ñenn ñoo xam ne euh, dañoo jël option ak initiative liggéey ci dans le domaine de la politique am na ñeen ñu jël option ñoo xam ne ñu ngi ci privé ba voilà ñu ngi jógee Sonatel di dem Tigo nga baal ma ci publicité si jóge port di dem ci beneen société di jóge ci leneen donc nit ñi ñoo xam ne tamit il faut que population yi xam ni que du ñu ay noon entre ñoom et que eux tous ñoom ñu dañu jël décision ñoom liggéey dans le dans la politique donc pour la gestion de l' état te état dafa tuuti waaw ah, état yaa dafa tuuti donc du du comme dans le privé nga xam ne yow ci à la possibilité jóge ci entreprise bi jóge fële et cetera donc ay coalition ak ay a lu normal la waaw ah, lu loo xam ne lu normal la te nit ki mënoo ñëw rek ne man bon fii laa far rek ba abadan kooku bu rek du ma du ma maa ngi ci opposition donc man damay relativiser souvent yenn yenn mbir yi di xew parce que peut-être nit ñi ñoom ñoo noonoo entre ñoom mooy waa APR en tant que population noonoo ak beneen keneen koo xam ne mu ngi mu ngi mu ngi beneen Sonko mais entre les hommes politiques amul benn problème entre ñoom nit ñi ñoo sonn rek mais entre ñoom ñu ngi waxtaan ay xarit lañu même boo leen gisee télé bu ñu dóorante saa ba nga foog ne ñii bu ñu génnee preuve ci tali bi du ñu nuyante bu ñu paree amaana ñoom ñaar sax dimanche bi ñoom ñaar ñooy jëlandoo café donc population yi ñoo comprendre lu nekk entre les hommes politiques homme politique jarul doon sa doom jarul rey jarul toj waaw yaa ngi sa carte yaa ngi sa sa mental sa euh, conscience pardon bu élection jotee nga dem élec def euh, élu ku la ku la neex votel ku la neex mais les hommes politiques moom bëgg leen topp si seen ay discours seen ay seen ay leneen perte rek man pa kaaw idi bi man pour man bettu ma bettu ma boo wuma wu ma tamit. Mhm. voilà seulement ñoom ñoo war a wax population yi dëgg. tey ànduma ak nit ki mais mënoo bañ a ànd ak nit ki ci lépp. a ànd ànd ak nit ki ci lépp. Mhm. nit ki point bi mais ànd ak moom ci point bële. dëgg la liggéeyoo ak moom tey mais suba mun ngeen liggéey ak moom. parce que les hommes politiques encore une fois dafa am benn champ boo xam ne ñoom ñoo décidé. n'est-ce pas dem foofu. fa la ñuy liggéeyee da ngay gis nit ñoo xam ne tey jii boo ñëwee Khalifa Sall Khalifa Sall depuis de quarante ans mosoo ko gis benn entreprise privée il est la dans la. dans la fonction politique. la fonction politique. politique. moom foofu la foofu la far ñoo xam ne dañoo décider dem privé ñu ngi entreprise bi mais xëy yàlla xam ne tey ci concurrent nekk suba nga demaat ci kanam bële mais loolu ça ne fait pas de toi en fait ça wax nit ñi man parce que loolu tamit histoire won nañu ko ça ne a pas être à moins yow nga nekk am beneen revenu am yeneen mais bu nekkee yow ci secteur politique bi nga nekk à tout moment tey bu ñu la war nga war nga mun a dem parce que la lu am importance mooy mooy nga joxe sa xam-xam ak sa mën-mën dans un secteur bien déterminé boo dans un domaine bien déterminé boo xam ne président bi ak kii bi moo moo moo la fa nommé boo demee nag bu mu warul toog ci en règle générale ci yëpp ba nga xam ne kii mënu Bah, tu es libre de sortir ou d'aller de, de, de, de faire autre chose. Noonu la noonu laa ko noonu laa ko noonu ñu ngi leen fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye kumba Moreau dalal euh, docteur Abdourahmane kan nekk sociologue euh, docteur actualité bi actuellement gis nga ni li ci gën a fës euh, moom mooy wàllum émigration wala immigration clandestine maanaam xale yi nga xamante ni pratiquement lu si ëpp ay ndaw lañu amaguñu sax quarante ans ñooy jël gaal yi pour dem ca Europe mu nekk phénomène Barça wala Barça. yàq ñu baree bari actuellement euh, ñu ngi dee ci géej gi phénomène bu nu mel déjà dañuy ñëw ci causes yi euh, lan moo ko waral si période boo xamante ni ñu ngi si période Covid 19 xam nañ ni Europe mi ngi ci crise bu métti métti euh, tamit doon doon dinañ sensibiliser à chaque fois jeunes yi ci li nga xamante ni mooy gravité dem Barça wala Barsaq di dugg ci ay gaal ainsi de suite lan mooy expliquer retour phénomène bi ci jamonoy Covid 19 bi la. waaw li nga en fait li ma xaaxaat ci immigration man je pense que amul amul retour amul retour te musul taxaw waaw man noonu ñi ñi nekk ci secteur bi ñi ko xam dëgg ak ñi ci bind xam na que peut-être que nag comme lu xam ne Sénégal moom souvent euh, réalité yi ñu ngi ko ñu ngi ci bàyyi xel son importance bu leen presse bi jox mhm. xam nga yéen moom pratiquement yéenay yéenay bu solo réew mi waaw boo leen xëyee tey jël Fatou Laobé ñëpp ci Fatou Laobé la ñuy nekk. waaw boo leen xëyaatee tamit jël Idrissa Seck ci Idrissa Seck la ñuy nekk et cetera. Mm-hmm. donc immigration clandestine day am ay jours yoo xam ne ça leen ça vous intéresse pas. mais instant bu mu la leen pressé am na ñuy continuer di dee. am ah, ngi mu bés bu nekk gaa yaa ngi gaa yaa ngi gaa yaa ngi dem. Euh, maintenant nag am na ay période yoo xam ne day am zoom day am sax yoo xam ne man je suis au courant de certains. Euh, chavirement de pilote mais donc di sonn ci ci ci presse bi pourquoi parce que jour boobu mbaa semaine boobu ñoom ñu am leneen loo xam ne moo bëri nekk si leneen voilà mm. ñu ngi si leneen mais phénomène boobu moom malheureusement c'est un phénomène continu boo xam am na ñuy wax ni peut-être crise économique bi Covid 19 bi andi moo tax xale yi gën a désespéré jël gaal yi parce que ñu bëri seen business état bi yàq na ko ay déguerpissement ay marché yu ñu doon toj gis nga chômage technique ñi si dem euh, ci période Covid 19 kenn xamul nuñ toll ci Covid 19 ñu baree bari ñàkk nañ seen liggéey est-ce que liyeewul ak tamit fee yooyu yëpp ba tax ñu bari jël gaali mais statistiquement. boo ko xoolee parce que bu ma xoolee tey jii les les statistiques aujourd'hui de bornage mooy yu navire euh, yu navire européen yi def souvent pour borner les Euh, les migrants ak ñi jot a egg ba ñu dugal leen ci Kaaba mais y' a pas de pic voilà y' a pas de pic c'est-à-dire mënoon naa ko maam comme instant boobu amoon na déferlement déferlement mais amoon na période bu ëppoon e boobu te je pense que euh, sincèrement les conséquences su Covid bi dundaguñ ko réellement c'est-à-dire que li wax pic bi parce que actuellement on est dans une crise sanitaire mais la crise économique elle elle pointe du léegi c'est comme la croissance boo buggee parfois balaa ngay ne nag balaa balaa balaa ngay ne croissance bi nii léegi gars yi population bi mën nañ koo jëriñoo rek il faut qu'il y ait une constance donc tey crise économique bi ñëw dugubuñ fi réellement ci seen i jëm te malheureusement les Sénégalais n'en sont pas encore conscients mmh. donc crise sanitaire lañ nekk gum crise économique bi bu ñaana guma ñaa yàlla nu ñu nu ñu corona bi bettee mm-hmm. crise boobu di ñëw ta bett ñi Mhm. sauf que nag le euh, l' n'a pas peur la chaleur nee nañu brus bi chaleur bi moo ñu ko tey donc am nañu chance mais crise bi dama mën ne ko mën tëj mais crise bi dañ si nekkagul ci épicentre bi ba ñuy me mhm. def relation entre tey bi immigration bi ak euh, euh, comment dirais-je ak coronavirus bi d'autant plus que sax nee la statistique bi prouvé wuñ ko mais crise économique bi réellement ñëw man dama gëm ni que bi ma wax rek euh, période bi période bi xaviré ba mu am dese yooyu y a eu une attraction de la presse nit ñi bàyyi gën cee bàyyi xel def corrélation bi ak euh, ak ak ak Covid bi mais man gëm naa ni que tey jii c'est vrai am na ñu bëri euh, perte nañu seen liggéey mais nu nu Covid bi di évoluer gëm naa ni que loolu du na nañu ñoo jël décision brusque rek pour jël dëgg. donc peut-être nag dans les mois janvier février mars avril nga xam ne côté yooyu la ñuy yaa gën a yaakaare crise bi économique bi ah c'est effectivement le nombre peut augmenter voilà donc le nombre peut augmenter sans compter aussi que am na ñu bëri ñoo xam ne ñi fi dem dañuy jàpp ni que tey euh, Europe ak seen crise bi ni mu demee noonu. Mm-hmm. ak ba ak entreprise yi ni mu nar ni mu sonne. Mm-hmm. bu crise bi jeexaatee. Euh, xam nga tubaab mais d'œuvre tubaab dafa cher donc am na entreprise bu ñëw par bi licencié nañu am na nit ñu bëri ñoo xam ne peut être dee nañu bés bu jeex tey jaay di reprendre j'en suis sûr que économiquement parlant les entreprises européennes vont beaucoup plus miser sur une main d'œuvre euh, moins chère nest pas qu'une main d'œuvre hyper chère locale te phénomène boobu lu gis nañ ko après la deuxième guerre mondiale gis nañ ko après la première guerre mondiale bu gars yi européen dóorante ba ñu pare mais après c' est des chinois c' est des c' est des c' est des ouvriers chinois la ñu jëli asiatique ak yeneen parce que ils étaient deux à trois quatre cent qu'un ouvrier européen donc tey jii aussi bon le sénégalais tamit xam nga moom même bu amul niveau bu mag parfois aussi c' est quelqu'un qui est très logique amaana tamit jeunes yooyu ñu bëri ñu fay mabli dem dañu jàpp ni que tey jii bu ñu xasee bu dugg foofu ils auront beaucoup plus de chance te am na ay dépêche yoo xam ne tey euh, du dépêche sax ay courrier peut-être confidentiel yoo xam ne gis nañu ni que mais yëg nañu ni que par exemple boo demee ay Europe le patronat européen euh, ñu ngi bàyyi ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, sensibiliser sax ay gouvernement yi que ñu bàyyi xel ni que après la crise pour la main d'œuvre quand même il va falloir qu'ils assoupissent n'est-ce pas les certaines règles par rapport aux immigrés et autres parce que ça de se relever et que mënuñu aujourd'hui supporter yenn charge euh, salariale yi et cetera donc de manière voilée c'est une manière de leur dire que quand même après la crise là on a besoin d'une main d'œuvre qui n'est pas trop chère voilà et d'ailleurs je crois que ce phénomène là les les l'immigration les Européens l'ont toujours utilisé de manière euh, voilà binale c'est-à-dire que bëgguñu ko mais bañuñu ko à parce que parfois ça peut servir voilà parce que soubassement seen soubassement économique yëpp c'est grâce à cette main d'œuvre euh, malléable et pas pas trop chère voilà donc ah, dañ leen ci sonal di leen ci dàq mais y a toujours un nombre tey tey bu dëkk bu mel ni France bu ma demee tous les sans papiers en une journée mun na ko def mun na ko def mais da parce que xam nga ni ci intox donc du lu ñuy du lu ñuy bëgg a xeex à cent pour cent lu ñuy bëgg a la xam nga entre loo bëgg a xeex ak loo bëgg a réguler y a une différence. y a une différence. Mhm. voilà ñoom dañu bëgg a réguler mbir mi mais bëgguñu ko éliminer parce que xam nañu gis nañu seen intérêt. c' est paradoxal comme aujourd'hui la drogue la drogue tey jii am na dëkk yu bëri yoo xam ne defuñu ko benn priorité parce que voulu parce que tey bu ñu leen waxoon ñaata milliards de dollars la la la bi di apporter au sud le pays de américain mais da lay jaax cigarette bi di rey ñaata ñaata milliards lay donc tey jii lu mel ni Sénégal par exemple amul benn dëkk réew boo xam ne bëgg na ko supprimer parce que boo ko bëggee supprimer da nga koy supprimer mu jeex presque jeunes yi tëgg leneen non non dañ ko bëgg a réguler mooy bu doon rey deux cent personnes nan lay reyee soixante dix personnes ñun ñu dugal ci biir kees bi ay milliards. voilà donc phénomène yu bëri tamit noonu la et immigration aussi euh, si la bopp ça veut dire que souvent boo gisee tubaab yi di kii parce que am na benn seuil boo xam ne ça les dérange un na benn seuil boo xam ne. ça les ça les ça les mais est ce que tey jii donc nag Dakar aussi hmm. beneen loolu loolu tam ma ko. mais quoi qu'on puisse dire aussi Sénégal c' est vrai gën na métti. donc tamit du ma nee rek non non non demuñu euh, demuñu parce que effectivement la vie est i hyper dure très chère euh, am na ñu bëri ñoo xam ne tey jii dañuy ne bu ma toogee Sénégal damay de entre guillemets bu ma demee Europe tamit mun naa ma dee. mais su ma fa dem nag bu yàlla dogalee tam deewuma ma egg li may li may li may dund fii loolu laay dund fële mais fële au moins am naa chance au moins même bu nee vingt pour cent la su ma amee liggéey génn naa ci donc il faut c'est comme les joueurs de poker mm-hmm. c'est comme ñu ngay gis ci casino yi qui jouent donc ñoom tamit dañuy nee ni tey kii kii la euh, kii kii lu fas la voilà pilu face bu ma fi toogee Dakar aw ma dara voilà donc aw ma lu ma dundalee sama bopp fi laay ñaa toog di ñaan fi laay toog di xoole su ma traversé y a des chances pour que dix pour cent de chance pour que ma ma ma ma dee mais am naa quatre-vingt-dix pour cent de chance aussi de réussir bu ma fa eggee lu mu bon bon tamit ci benn cas lañ may dugal waaw dina dundal dina lekk et cetera le temps que may mun a génn bàyyi ñuy trouver solution donc loolu après bu ma génnee nag. par contre mun na sama avenir mun na mun na mun na mun na mun na tekki mun naa ci tekki d'autant plus que ñoom ñi fa nekk loolu la ñuy gis souvent si ñuy dem di ñëwaat parce que nit moo mel noonu tey jii boo toogee sànn ngay jaay ay tuuti extra dégg-dégg diw dem na deux ans trois ans après mu ñëwaat di commencé taal otom ñëw di leen sakk indi leen ay cadeau ñu leen takk na jabar def na lii. Mhm. am na kër tuutiwaan pël jënd na et cetera leneen. Mhm. kooku lay mais fàtte nga ne kooku bu réussir am na yeneen deux yoo xam ne dee nañu si yoon bi dem nañu ñu ngi ñëw yalwaan si yoon bi mbaa il vit ñu ngi dund ay yoo xam ne moo gën a tar bu ñu nekkoon Dakar. Mhm. mais yow ñooñu dañ tudd leen di ñu intéressé ki lay intéressé mooy kii dem tekki ñëwaat delluwaat waaw indaale nag ay yëf nga teg soo nga ne pourquoi pas man tamit ma dem essayer. mais est-ce que tey jii am parce que on est en en Afrique. on boo xam ne ni képp ku am rek day exposé wu. boo demee ci base bi ñu demoon Europe ñu demoon leneen bu ñu ñëwaatee ñëpp a yëg ni ñëwaat nañu. donc du ñu du ñu réewul sutura. entre guillemets bien sûr parce que ah, tey jii bu nee yenn mbéy mi tey mun nga voyage ñëwaat ci commune mais kan xam nga ñoo am nga mais fii tey ku ñu demoon immigré boo ñëwaatee sa commune pratiquement sa commune yëpp dañ koy waxtaanee. donc xale yi di ko gis nag di ko leneen ñoom fàtt nañu ni que sax am na yeneen dix ou vingt yoo xam ne gis buñ ne bu si ñu si delluwaat mais ku leen intéressé mooy ci koñ bi docteur kan ñëwaat na defaraat na seen kër mu ngi gaaree yoo tamit bu baax buntu kër gi donc ku ma nee am fekk amul fa daf may ndax mhm. voilà tey jii peut-être dernière question bu ñu lay poser Abdourahmane Kane moom mooy est-ce que am na lu mën a téye ndaw yi fii ci Sénégal par exemple est-ce que am na actuellement euh, lu ñu mën a def pour ñoom ñu toog. waaw mun naa mun naa joxe discours bu nit ñi di bëgg a mooy le discours usuel. boo xam ne dañuy ne waaw politiciens yi dañu liggéey. Euh, mais ut liggéey mu tuddee encore euh, créer usine créer emploi créer et cetera. loolu c'est plus plus facile à dire qu'à faire. voilà parce que am na ay contingence yu bëri yoo xam ne. Euh, ñun suñu bopp yaruñu ko. waaw ça veut dire dafa am lu ñu laaj. parce que tamit euh, un homme politique bi Guinée. damay delluwaat rek ci li may wax sama mbokk africain yi. il faut que ñu am la culture du travail c'est vrai que nit yaa ngi liggéey mais. il faut que ñu changer mentalité. c'est-à-dire ku nekk sa côté xam ni que yo boo yeewul journée bi même bu neewoon sax deux mille francs war nga ko mën a indi ci kees kees bu mag bi. damay jox benn exemple rek. tey Sénégal budget mu ngi nekk si suñu juumul trois mille quatre mille milliards pour quinze millions d'habitants je suis désolé c'est rien trois mille milliards pour quinze millions d'habitants ak Sénégal lu mu bëree lu mu bëree soxla du dara c'est-à-dire que loolu déjà problème boobu la ñu war a la parce que budget mooy la mooy dafa mel ni tontine rek mooy li loo xam ne Sénégalais yi ñu jàpp nañu que loolu la ñu mën a liggéey ci at bi donc comme loolu ñu mën liggéey indi ko ci at bi nan la ñuy def ba suñu dépense yi méngóog loolu ça veut dire bu ñu indi woon neuf milliards di dépense yooyu tam dañ koy yokkaat parce que mooy am nga neuf milliards donc mun nga dépenser neuf pardon neuf mille milliards mun nga dépenser neuf mille milliards yooyu ci ci ci ci année bi mais tey ay trois mille milliards quatre mille milliards jëmewul réewu kanam da ngay suul fii di suul fële donc tey il faut benn variable il faut qu'on ait des patriotes ay hommes politiques yoo xam ne tey moo leen tax a jóg amul njuuj njaaj saa ci yeeg euh, détournement yi ñu bañ a am ay nit ñoo xam ne loolu mooy seen priorité loolu mooy premier élément bi deuxième élément bi il faut que ñu remonter aujourd'hui la cotisation des Sénégalais parce que tamit nit ki man boo fekkee ne da nga def sa tontine kër gi ñëpp xam nañu que tey dépense journée bi par exemple dix mille francs la yéen ngeen ngeen ngeen réunir def seen tontine jox ma deux mille francs ba pare bëgg nekk di dund ci dund koo xam ne dix mille francs nga war euh, ngay dépenser kooku du a nekk donc tey population sénégalaise bi en règle il faut que ñu ñu yokk sen participation ba pare nag protéger xam nga boo demee ci dëkk tubaab yi dañ lay ne tout est cher parce que da ngay fay lii fay et cetera et cetera mais en échange il y a tous les services mais ñun a règle générale en Afrique dañu bëgg tous les services mais kuñ ci ne cotisel rek mbaa joxel nga bañ tey boo demee impôt ñi fay émarge di fay ñu néew lañu te mag ñooñu dañeen leen ko boo waree fay cent mille am ko neexal ne kër joxe quinze mille courant bi même chose jàpp électricité bi di ko di di ko kuy kabat xam nga woo benn technicien mu teg bind la et vingt milliards vingt milliards de de fraude électricité ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey le l' sur le patrimoine bat kan moo ko fii fay ñii di loué seen ay kër ay nit ay nit di ay presque six millions par mois laaj leen ndax ñuy jaar quinze c'est pas vrai boo demoon feneen ak feneen ak feneen ak feneen publicité bi les panneaux publicitaires ak yeneen ak yeneen redevance yi amu kenn kuy dem berse bi tey loolu mooy loolu voilà mu nekkoon seen émission sociale toute la ville en parle ñu dalaloon ci docteur Abdourahmane Kane xam-xamam màcc ci wàllum euh, sociologie ñu doon waxtaanee lépp lu soxal jafe-jafe yi nga xamante ne société sénégalaise fi mu toll nii mi ngi koy daal di jànkonteel kon ñu koy remercier bu baax a baax ci teewaayam di remercier Mamadou Diawo Diallo mi nekkoon ci technique bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de dix heures à onze heures émission bi. mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube mi officiel wala ci suñu portail internet www réew mi point com jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.